jigéen ñi soxla nañ bu baax a baax ndax DER bi dafa xaw a surcharge soxla nañ yeneen financement yoo xam ne si nii dina leen jàppale ci seen activités yi ñuy def ci jigéen ñi loolu xam nañ sa taxawaay xam nañ noo demee ak la première dame Marième fay Sall xam nañ noo demee ak ki nga xam ne moo yor financement yu jigéen yi ci réew mi xam nañu sa xarit la toujours yaa ngi ciy waxtaan ak man su ma ñëwee sa bureau ni ma financement yi nu ngeen ci def dinaa woo kii dinaa kaa xam nañ bu baax baax ni te vous de parole boo ci jëlee engagement loo ci wax danañ ko jàpp danañ ko bàyyi xel xam nañ sa yéene xam nañ sa bëgg-bëgg xam nañ sa njàmbarte kon ñi ngi lay dégg suñu jigéen ñi loo man ci financement yi doo si ci ci ñoom wax dëgg yàlla nga jàppale ñu ci parce que ay jàmbaar lañ mënu ci ñàkk monsieur le directeur en résumé village su Boukhatoul Moubarak mi ngi nii li nga xam ne mooy suñu soxla bokk na ci gis nga ni village bi lëndëmee bu lamp yi fayee nii nii nii da nga gis ne fii dafa lëndëm électrification bi dugg na fi mais am na ay zones yu mu manqué ku la xam xam ni mën nga dara ci courant patrimoine bâti nga yor yow ak le directeur de la Sénélec vous êtes des amis mën nga ci dara village bii dafa am lu mu soxla soxla ko ci am ndox soxla ko ci ay tali tali yi nag mooy priorité daanaka moom moo la fi indi ànd nga ak le chef de village dugg ci mbedd yu sori yu gëna a reculer jaar ci 30 yépp lolu rafet na ci njortu organisateur yi ñi ngi leen di remercier. am naa yaakar ni mustapha Seck mi buñ ko jappalé jappalé sunu bop ndax Touba yépp daf leen mëna jité rawati na wasam gi ndax financement yi mu fi duggal yag nañ fi te kenn musu ko fee duggal jappalé na jigeen ñepp ba nga xamanté boo ci gis ni ñaar fukki ni ñu déposé won ci projet bi xat bi yépp jot nañ te ay jot.

de l'honorable député Aïda un, jeune très dynamique, à l'image de notre temps, très engagé pour sa localité, euh, le quartier de Boukhatoul Moubaraka, et qui fait beaucoup d'actions et représente vraiment de façon digne euh, sa communauté. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas manqué l'occasion aujourd'hui de manifester mon amitié vis-à-vis -vis de lui et aussi de venir lui prêter main forte dans son une action citoyenne vis-à-vis de sa communauté. Moussa Sek est un jeune qui s'investit beaucoup euh, pour sa communauté. Comme vous l'avez vu, euh, les acteurs sociaux l'ont rappelé pour le sport, pour la santé, pour toutes les questions d'ordre communautaire. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à cet homme, Serine Salou qui depuis 1995 est la personne que Serine Salou Mbake avait désignée pour euh, Président au destiné de cette communauté et pour laquelle il a été un homme exemplaire. Pourquoi il a été un homme exemplaire C'est parce qu'il est rare qu'une personne qui distribue ou qui assure la répartition de 36 000 parcelles de logements n'en ait qu'une seule. C'est très rare dans notre pays.